eh Ousmane ba tey jii gars yaa ngi voyagé dañuy duul te ñu frontières yi billaahi walaay taalaay gars yi ñu ngi voyagé peut-être voyage yi ñoo bëriwul mais gars yi ngi voyagé ci pet booy aéroport bi tëjuñ ko dañuy duul billaahi man dama yor benn agence boo xam ne day def Dakar aéroport kase man maa ko ubbi chaque jour chaque jour ñu woo ma nit woo ma ne ma damay dem aéroport urgence waaw man ne leen man fi mu nekk nii arrêté naa ko parce que ci yoon bi gars dañoo tëj dañoo tëj kii. Euh, dañoo tëj nu mu tuddati péage yi région ak région sax waroo fa dem à moins que nga am autorisation bu bu valable sànq rek sànq billaahi am na ko ma war a jël Air France mercredi la ma wax mercredi la war a jël Air France nee na ma vol spécial la xam affaire bi mel man ko soxna si soo bëggee soo bëggee oto bu la yóbbu demoon nga xool feneen man fi mu nekk nii service bi arrêté naa ko arrêté naa ko ba ñu ubbiwaat frontières yi ba maladie bi normalaat Aziz li ngay wax kay man maa la ko mën a seedeel man wallahi tey sama grand boo xam ne aéroport la nekk mooy commandant bi policier la mooy police la ne mooy commandant bi foofu billahi wallahi vol spécial yi nga wax loolu la ma wax tey daa woote ma ne ko seen aéroport naka job bi mu ne ma aéroport dem euh, job bi bëriwul noonu mais vol spécial yi dañ daa am ay vol spécial yuy dem di ñëw ba léegi billahi moo ma ko wax tey yàlla yàlla seede lool li ngay wax moom maa la ko mën a seedeel waaw bu dama bëggul joxe ay tour mais je confirme ça vol yi ñu ngi dem di ñëw dañuy duul te duñ dara